at bi sifflé na doomu Yoff Fils de doomu Yoff Fils de Sam Sam ndeysaan ñooy leewaatoo dox doomu Yoff Fils de doomu Yoff te sam dafa wàcc damante baaraam doomu fi te sam-sam waatoo dagg na fi te sam-sam waatoo doomu fi te sam-sam moo féetee ndeyjoor fi te moo féetee càmmoñ ngemb lu vert balaa doomu yoof Cité Sam Sam mépp na doomu yoof mépp na mais dalul doomu yoof Cité Sam Sam jàppante ba loxo bi daa simmeeku delloo na ko wóolul doomu yoo fi de sam-sam doomu yoo fi de sam-sam ar bi sifle waat na jàppante nañ doomu yoo fi de sam-sam jàppoo nañ ngemb fi de sam ñaar jàppante nañ fils de Yoff doomu Sam Sam kal na ko kal na ko kal na ko daan na ko moo daan boppam fils de Sam Sam daan na doomu Yoff fils de Sam Sam daan na doomu Yoff daan na ko daan na ko daan na ko fils de Sam Sam daan na doomu Yoff fils de Sam Sam ndeysaan